diggante parisien ak calcio parisien attention parisien door na parisien calcio eh waaw waaw calcio nga noona buy bëre si nag dañ koy wasifaal naan ko calcio calcio jël na ku calcio jël na ku parisien door na ko jël na ku attention combat bu neex eh parisien ardo parisien ñëwal faju oh non Calcio moo ñëw ci Ardo Calcio moo ñëw ci Ardo Calcio suufu R4 bi moo ubbeeku waaw waaw diggante parisien ak Calcio parisien attention parisien door na parisien Calcio eh waaw waaw Calcio nga noona buy bëre si nag dañ koy wasifaal naan ko Calcio Calcio Calcio jël na ku Calcio jël na ku parisien door na ko jël na coup attention combat bu neex eh parisien ardo parisien ñëwal faju oh non calso moo ñëw ci ardo calso moo ñëw ci ardo calso suufu R4 bi moo ubbeeku waaw waaw calso mi parisien dina ko gaañ de calso mi parisien dina ko gaañ de attention waaw waaw ey eh, calso yooru na Calcio yooru na jàpp na waa mais parisien mi dina gaañ Calcio de Calcio xanaa amul garde Calcio dafa mel ni amul garde parisien Calcio parisien Calcio waaw waaw parisien dafa mel ni bëggul jàpp bi xeex bi la bëgg moom. ndeysaan Paris et Calcio eh waaw waaw Calcio day yooru de ay waay Calcio defaral sa garde gi kalsoo dinañ la door nga wàcc de Calcio parisien mi dina la door nga wàcc ay waay ba eh attention Calcio ngi yooru gis nga parisien bëggul calson jàpp ko waaw waaw waaw waaw parisien ngi dóor di moytu parisien ngi dóor di moytu eh ma yéen calson mi sonn na de calson ter teri na xool ko ni muy doxe xoolal calson ni muy doxe oh calson combat bi metti na ci moom parisien jël na avertissement Parisien am na deux avertissement attention eh waaw mais waaw mais Kalso mi Kalso du eh waaw Kalso mi Kalso lu ko dal mi jar naa yërëm de ay waay Kalso sama xarit bi waa Kalso doo baare Kalso Kalso baareel ooy Kalso bu door bu door da ngay fayu nga baare Calcio parisien Calcio parisien mooy yéen mooy yéen kii parisien dina ko gaañ de mooy waaw lii lan la nii waaw way sama ndey eh eh waay waay waay lii metti na waay mais del baare waay. nee nan Calcio mënatul a bëre jox nan ndam lii parisien parisien ngay jooy jëlal parisien Mansour parisien ngay daw di jooy. jëna def na ko fii ca sat yow jaal sa bayra jeex na yow sa bayra jeex na amatoo bayre ba am lay woote demee na sa bayra jeex ah baba baba la grand